ñetteelu édition bu salon national du livre dal dinay doon ab prox doolu ci jëriñ bi ñu dénk wàllu cosaan ak aada mu dal di lëkkale lépp luy secteur ñeel wàllu culture ak wàllu patrimoine waaye tamit dal dinay sargal njiitum réew mi Macky moom mi nga xam ne tamit bind na ay téere yu bari jëriñ bi ñu dénk wàllu patrimoine historique dal dinay dogu ngir fexe ba école élémentaire bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall fa jàngee mu classé ko j'ai pris un arrêté ministériel pour classer l'école primaire où Macky Sall a, le président commencé ses études, où il a appris à lire, à compter, à calculer. C'est historique. Mais en plus du classement de cette école-là, j'ai invité les acteurs culturels de procéder à la décoration de cette école-là. J'ai donné des instructions à la direction du livre pour édifier une bibliothèque pour promouvoir davantage livre au, au milieu en milieu scolaire. mu dal di sabab prix international Macky Sall bi tamit fas naa yéene dal di neexal képp koo xam ne meilleur élève nga bu génnee ci boobule école bu ko defee Macky Sall doon ab exemple. mais également j'ai pris sur moi en tant que jeune frère compagnon et fondateur du prix international Macky pour la culture la paix et le développement une forme de récompense par extension en décidant de prendre chaque meilleur élève de 15 classes de l'école, donc les 15 meilleurs élèves, et octroyer à chaque élève une bourse mensuelle de 25 000 francs pour toute l'année 2024. ci biir salon tamit dinañu ci amal ay ateliers yoo xam ne dañuy sensibiliser waaye tamit dikkaat ci li ñuy joxe ak li ñuy tëggee lii di téere yi ci noonu am na solo ci ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu cosaan ak aada ñu dal di saafonte ci téere yi ñuy tëgg ak ciy waxtaanee. pexe it ba yombalal ko askan bi